mbokk yi topp 24actu point com dellusiwaat nañ nga xam ne moom lañ tuddee jotaayu koor jotaayu koor nag ñu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo di jànkati xasida yi di ci def lépp loo xam ne dafay daal di dundal koor ba tax na tey ji dañoo dalal ki nga xam ne moo di Serigne Bathie Diop Serigne Bathie Diop nag buñ ko déggee muy jànkati xasaayit bu mag ñu fas yéene ànd ak moom suñu biir jotaay Serigne Bathie ginnaaw buñ la nuyoo ñu bàyyi nga nuyoo ñu lay seetaan Euh, mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp li ñu déglu ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di njiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di nga ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd te ma ànd ko wér ba yéen ji am ci liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëggee te ñaan ko ak moom. Euh, di ziare baax sunu bunt ci yoon wi di Serigne Cheikh Aliou Mbacke. ko ñaanal yàlla moom it sunu borom bàyyi ko fi ba lim yéene lépp mu àggale ko defe ko ni mu ko bëggee ñaan ànd ko ak moom barke xasaayid ñu ngi siyaar ñëpp tey tey balwaq ñëpp ci weer wi ñu nekk muy weeru koor wi sax ramadan u baax rek ñu ngi siyaare taalibi sëñ Tuubaa yëpp rawatina jullit yëpp Eh, waa jërëjëf Serigne Bàcc ci nuyoo bu matale bi xam nga ne jataay bi nag daan nañ ko sekk ki nga xam se ne moo di soxna Astou la tey ji nag mu nekk ci yeneen te mu leen koy jégalu bu baax waaye sëñ ci jataay bi day jataayu xasida ñu bëgg nag nga bala ñoo dugg ci biir waxtaan bi nga ibbeel ñi xasida yi ba pare ñu soog a xusani ci waxtaan bi aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima saana ilahi bil munajati wa badan akhna yadi hanadi سبحان إلهي بالمناجات وابدا اخنا يدي حنادي دل علي xulamaa wal awliyaa man laa yazaalu xuwati wa awliyaa xasiidati faaxat xasaa'idal kiraawa wali taquudu abadan xayral maraam haddiyaati muxjilatun kulla maliyak kaana munaasian wa aqsawul malik maa نصر الله دي بلا إله إلا الله مع تواجعا نصر الله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 a ah, sëñ bàcc de eh, taalibe bi sëñ Touba la juddoo fii ci Touba eh, fi laa jàngi alxuraan daarul xudos que sëriñ Basiru Lo sëñ Siru Lo sànn moom moo ne woon eh, ilmaani jàkkee daarul xudos ci moom laa jàngi alxuraan yaru it yaroo it sama kur turandoo mu ne ci wetu marché daarul xudos sama gane jamono ak sama ak ngone yëpp ba ci jamono ji ñuy toog di wax lépp génnul Touba mm. Touba lañ ko defee mm-hmm. ay taalib sëñ Touba nag di yëngu ci xasida yi muy sama métier mm-hmm. ñu bàyyi lépp jàpp ko mm-hmm. euh, boo bëggee xam sëñ Bathie daal mooy ab taalib sëñ Tuubaa la bu juddoo tubaa màgg fi yaroo fi nga dëgg la ci xasida yi waaw sëñ Bathie tamit ñu daal di bëgg a xam tamit sëñ Bathie kañ la dugg ci njàng waaw loolu xam naa dana xaw a jafe wax ndax man dama teel a dugg ci njàng mi lool ndax bi may tàmmalim njàng booba maa ngi ci daal ji di jàngal xuraan dama xàmmee rek ne ci xasida yi eh, yàlla dogalit mm, wilaaya bi nga xam ni mooy wilaay bi sëñ Mbàkke Soxna Lo fi laa jàngee am njàng ndax euh, Daaru Xuddos gi ma nekkoon mm. quartier bi ñuy wax Ridala fi laa newoon mm. bokk ci euh, membre yi wilaay mm. bi may euh, tàmbali xasida yi ci daara ji laa ne nekkoon faak samay moroom ñu ñuy wax Serif Thiam mën naa cee tudd Serif ak sëñ Mbàkke Jeng ak ñeneen ñu bari ñu defoon kuréel boo xam ni kuréelu mawlul la woon waaye jamono jooju mooy jamono yi sëñ Ablaye Abdoulaye Niang di jàng daan ñu daan def bu guddi alxames gu nekk ñu def ñu ñu def ñu ay tour di ko joxe ci kër yi. di ko joxe ci kër yi. waaw booba lu ndaw laa. Ah, eh, ñu koy joxe ci kër yi par alxames. Ah. bun musaana kuréel bun jàngee eh, ñeenti bunt ci mu fàttixol jinaan mm-hmm. muy axababtu ak fataxa mm-hmm. ak malaktu ak fusti mm-hmm. man ma jàng mu waay bu eeru Baye Ablaye Niang. eeru Baye Niang bu ko defee Serif Thiam. daal di jàng eeru Sëñ Ablaye Seck boobu Sëñ Ablaye Seck doog a tàmbalim jàng. Hmm. dañuy jàng wajjatu kuliya saa xorbin. Ah, waaw bu ko defee ñu daal di naan suñu café wala suñu meew. daal di <laughs> seetlu suñu tàngal ku ne daal dem. Ah, booba nag yàgg na du jamono yii eh, boo déggee ma naan la lu naqari jàppale doon ah. mooy dama gimmi rek ah, eh, nekk ci xasida yi waaw yàgg na waaw nga xam ne booba temps boobu daal mm-hmm. Baye Ablaye Niang doon nga ko a roy kon ci waaw Baye laa njëkk a roy ci jànkat mm-hmm. roy naa ko lu yàgg sax mm-hmm. jamono boobu sëñ Ablaye Seck doo génn ma bàyyi sëñ Ablaye Niang nag di roy sëñ Ablaye Seck booba jamono yi def kuréel sax dem naa ba nga xam ne buñ buñ kuréele ba nag duutuma jàng eeru sëñ Ablaye eh, sëñ sëñ Ablaye Seck laay jàng muwaahibu laay tàmbale ci eh, salli wa salim ju mujj ju njëkk ji eh, ba ci ju mujj ji sëñ Serif Thiam moom daal di àggale ñaan loolu yàgg na du jamono du jamono ji yàgg na wax nga dëgg sëñ Bàcci waaw ñu bëgg a xam tamit sëñ Bàcci eh, naka la def ba dugg ci njàng mi ak bëgg ko waral wala waaw xam nga nit moom lu mu bëggul rek du ca nekk Eh, te du ca wala bu ca nekkee du ca jariñu ndax ak bëgg dafa dafa dafa jiitu dafa jiitu lépp mhm. ndax eh, jàpp naa ni eh, koo gis muy dox di dem mhm. la muy yëngu loola loola ak bëgg-bëggam dajaa jiitu mu cay mu cay nekk ah, moo tax ñun dañ dañ ko sant sëñ Tuubaa ndax ci xasida yi la ñu ñëpp xamee képp ku ku xam tuur sëñ bàcc rek ci xasida yi nga ko xamee nag ak sant yàlla la ndax li may faral di wax waxtu nekk mhm. sëñ bi moom ñii nga xam ne ñooy yëkkati xasida yi hmm. li ma gëm mënta jàpp ko mooy hmm. du seen ngóora ah. maanaam ndimbalu sëñ bi rek la ah. sëñ bi moo moo leen dimbalil boppam def leen ñuy ay jànkat ndax hmm. ci fi nga koy mën a gëmee mooy nit day day da lay gën a mokkal xasida eh, gën laa mokkal lu mu ëpp ci lu ëpp ci ay xasida yi nga mokkal gën laa neex baat te yàlla dogalul moon ko yëkkati waaw yow nag bu la bu la suñ borom dimbalee mhm. sëñ bi jàppal la boppam mhm. defal defal la ngay jànkatu xasida mhm. loolu ndimbalul yàlla la waaye day dafa dafa fekk nag bëgg gi bëgg gi mm, jiitu waaw waaw ndax nit ki nit ki lu mu bëggul rek ñaari daay du ca nekk waaw mu mel ne sëñ bàcc tamit xas day ku ci nekk tamit di nga gis koo xam si ne moom ngay àndal mm. sëñ bàcc kan la daan àndal waaw yàlla dogal nag man sëñ Xaadim Géey rek laa mos a àndal ci jànkat mm-hmm. ndax bari na xam ni euh, bari na ay jaaruwaay yuñ jaar boo leen laajee danañ la wax ay jaaruwaay yu bari dëgg la nag xaj na roy naa sëñ Abdoulahi Ñang roy sëñ Abdoulahi Seck waaye nag euh, takk sama laxsaay moom maanaam di tër bi yow ci ci jàlla dogal ci sëñ Xaadim Géey laa ko def waaw moo ko defee waaw bi ngay ànd ak euh, sëriñ Xaadim Géey tamit ci ban diir di ci maanaam bu ñu bëggee tënk daal ci ñaata at la waaw xam naa bu fekkee ni ci ci li ma jàpp ci nga xam ni dama dama dama bàyyi lépp di ànd ak moom. Hmm. loolu 94 la xaw ma 95 diggante 94 95. Hmm. ba 2007. Hmm. waaye lu jiit loolu. daanaa def boo maa ngi ci daara di daara ji di jàng. fu daan jàng fii ci dëkk bi. daanaka fa fa damay dem ànd ak moom ci njàng mi ba jeex. ma dem. bu dee jàng fanaan dama ànd ak moom mu ba mu jàng ba mu fanaan ma xëy dem jàngi. wala bu fanaanut ma dem fa ma jeex ma dem tëddi bu ma xëyee dem jàngi. Ah. def naa ko ay yoon ci ci boobu maa ngi ci daal ngi ci daara ji nga xam ni mm. amaguma liberté pour ni a dem jàng mi. Ah. lu jiitu may may may bàyyee jàngum alxuraan mi. Ah. waaye diir bi ma bàyyee jàng alxuraan moom. Mm. di di nga xam ne opté euh, xasida yi rek. Mm. moom fi ne jamono yi ñu toll nii mm. kenn mënuñu ni dama jàng xasida rek ci suñ ci suñ classe yi ñu ne mm. nga xam ni dañ dañ da ngay jóg ànd ak say awkat ngay jàng mënoo ñu xasida am ñoo xam tey jii na ñoo xam ni mm. la xam nga xasida arab am ñoo xam ni mu dégguñu arab am ñoo xam wolof lañ loolu lañ xam am na ñoo xam ni xasida moo leen mën a daan daaneel waaye wolofal muy leen daaneel am ñoo xam ba li ngeen leen jàpp sam jàng dëgg-dëgg da ngaa te oo ci nekk mu jox ko lëm lëm lëm lëm aajowoo ko. waaw loolu mooy ñàkk. waaw olofane yooyu nag ci lañ bëgg tamit nga daañu ci tàngal benn daañu ko dikkaat ci biir jotaay bi. pour yëkkati. waaw. Cheikh Moussa yaa ne xaanal dal nga xel. wambat nga ruuy fi àgguloon jëbbal sa baay. Cheikh Moustapha daane xaandal dal nga xel wambat nga ruu fi àgguloon jébbal sa baay Musaa yaa ne xaandal dal nga xel wombat fi àgguloon jébbal sa baay hal fil wara man shakkaanal Mustafaa warisal xadiima wilaayatan doom moo di baay فالمصطفى ورث الخديم بنوري وجماله وجلاله دوم دباي فالمصطفى ورث الخديم بنوره وجماله وجلاله دوم دباي فالمستوى ورث الخديم بفضله وبجوده وسجائه دومو دباي فالمستوى ورث الخديم بسره وبحلمه وبعلمه دومو دباي فسر بكون المستوى قد جاركم xat zaarakum ahlihi ya ahla ngaay yéen waa Kajoor kañu leen bu baax war ngeen a kañ ngir Moustapha ublam bi Mbàkke jawaawalaay Jurbel du leen cerfal ndaxam ngir Moustapha ñaagaan na leen bi kalaamihi am ngeen médaay daaroom ya mooy Tuuba wa xosnu maabi ku fa manta dem na siyaare gi ñaaxeen mbaate ngaay Seex Mustafa wamman ganaar wamman wolof kenn reeratul yaay tiitaru baadoore ñi fi sant njaay masha Allah sëñ Bathie bëggoon a xam tamit sëñ Bathie ñaata kaset la génne ci njàng waaw génne naa euh, génne naa cinq kaset. Ah, uh-huh. yoo xam ne mm, bi bi ci jiitu uh-huh. moo Talla Diagne moo ko Talla Diagne Dakar uh-huh. moo ko moo ko moo ko produiroon. moo ñaar sax ñaar yi jiitu. mooy bi ma àndoon ak suñu xarit ak euh, ak yaa jumla tam moom ñaar yi ma ko arrêté may jëlee nag am naa ko production waaw ñetti bi def naa ko production amul na dégg sëñ Bàcc yi ñu euh, nekkoon na bokk ngeen ci jàngat yi koy taxawal sëñ Bàcc mu ngi taxawal bis boobu ba tey wax na waaw bis mi nag ñaari at euh, ko mu am ci ay nga ah. ah. toxu am ay waroon defaraat nag ci kër ga yooyu rek moo tax ma arrêté kon bëgg bàyyi ba daal di noppi ma dëg ko continué mais boo bëggee boo wootee mu mel nga bëgg mm-hmm. yaa nga ko bu baax a baax waaw sax moo tax waaw waaye incha allah ko tàmbali waaw sëñ Bathie ñu bëggoon a xam tamit yéen en tant que jàngkat ngeen te ci réew mi ngeen dëkk nan ngeen ban relation ngeen am ak nga xam ne ñoo di politiciens yi ban nan waaw loolu de moom xañ ne euh, des na lu bari bari ndax euh, taxawaay bi nga xam ne moo war suñu diggante ak ñoom lu ci bari bari des na euh, ndax relation bi xañ ne bu fekkee ne personnel la ku ci nekk xañ ne am nga ci ay nit ñoo xam ne seen nit yi bopp lañ doon xañ ne la ngay séq ak ñoom yaa ngi jëflante ak waaye bu fekkee nag dëgg-dëgg maanaam maanaam. ñu mag ñi kilifa yi nga xam ni taxawaay bi war si ci noonu mm-hmm. comme ni ñu koy taxawoo mm, wàllu mbir ñi nga xam ne ay waykat lañ wala ñu àddina yi wala moom taxawaay bi des na ndax mm, am nañ daayira boo xam ni mooy bu naa fi wax la sëñ Saliou mën ko tuddoon mm-hmm. am na ay jamono Abdoulaye Wade boo xam ni amoon nañ defoon nañ délégation moom mayuñu ko jaar si jamono moo xam ne da ngeen di boo xam ni day tax ñu reconnaître lan mooy jàng bu ko defee lu lépp lu ngeen bëgg ci ay kayit dana mën a yomb waaye xam nga eh, bi fi bi bi ñuy gisante ab laaj daal dajante muy muy waaj a wàcc waaw tey xam nga eh, taxawaay ak gis gis président yombul. te mm-hmm. am na ci loo xam ni li fekk toogoo moom waxtaanee ak moom. Mm-hmm. mën na ko bañ a xam. Mm-hmm. ndax nag mébét boobu daal mujjul sotti ko. mujjul sotti nañ ko ndax ñu ñu boole woon ak ku eh, ñuy wax Camara la sant mu ngi dëkk Thiès moom la boole woon pour mu toppaloon ñu man toppaloon ko ma noppi waaye daal. dëgg-dëgg daal def démarche yi ba ba loolu sax moom xamagul waaw mm-hmm. ah, na eh, xam nga ñun dañu ay dañuy dañuy ay gone ñi nga xam ne ay kilifa lañ ca ca war cee doxit xañ na bu dee yeex yaat xañ ne lay tax muy taal ñoom dëgg-dëgg ñoom ñoo koy xam waaye daal bu dee bu dee relance bu dee fekkee ni jàppale moom nga xam ni dañ dañ dañuy jàppale ñu ëllu xasida yi mm-hmm. moom mën naa ni loolu amul waaw ndax ku ci nekk des na ndax ko ci nekk tey bu fekkee da ngaa da ngaa bëgg a tukki yaay lijjanti si bopp dem waaw yaay def say moyen fexe ba dem rek ni ko ñëpp lijjante waaye ndax lu jafe la doon lu yomb loo xam ni da ngay dem rek comme ni yombi misi seen ñu xam tey ku bëgg da ngay mën a yóbbaale sa orchestre bépp fi ñu tey jàngkat bi dem mënoo yóbbaale benn awkat waxatu woon booloo loolu jafe-jafe la te it xëy a xam ñàkk xam bu ñàkk comprendre la muy jàng rek moo tax mu demee noonu waaye lu lu lu musicien di dajale rek ci mbooloo ñu ngi koy dajale ci mbooloo ah. bu ci àll bi mm-hmm. da xam ni lu muy lu muy seen daje dajale ci bois bi rek ñoom ñu ngi koy dajale ci base bi. waaw tey waaw ñu gis ne bi lu ci bari mën nañu ko cee yaatal en tant ne yéen comme que ci réew bi ngeen dëkk te jàng xas day ngeen di am na solo lool kon tey bu ngeen doon defu soññee pour mu jëm si ci moom lan ngeen di wax. waaw xam nga xam nga li ma gëm li ko wax toujours mooy hmm. euh, ñun ñëpp ay ay hmm. ay wolof lañ. président bi fi nekk wolof la. Hmm. ak Sénégalais la xam nga jàng kenn umpale ko. ku ne dëgg nag dëgg nag xañ na taxaw jànkat mm-hmm. loolu moom la tax la defuñu ko loolu xañ na ñoo koy xam ñoo ko xam waaye ku umpale jàng amul ndax Macky Sall nii fi mm-hmm. eh, yi ñi mu nekk premier ministre mm-hmm. man ànd naa ay yitte yu yu moom xam na ko bu baax kon xam na jàng eh, eh, Abdoulaye Diouf dem na fa li ñu doon premier ministre xam na lu jàng kon ku umpaliwu jàng waaye waaye xañ na taxawaay bi moo des tey euh, xañ na bu fekkee ni euh, mën naa ni la waral taxawaay bi am bu fekkee ni téeméer la mm-hmm. maanaam juróom-ñett fukk bépp ñoom la doon waaw ñun li ñu war a def lépp ndax ñu ko waaw ñu ngi koy def mm-hmm. waaye taxawaay bi des na taxawaay bi daal lu ngeen mën a mooy taxawaay bi des na des na bu baax la ah, waaw sëñ Bathie ñu ndax ñu ngi def ay tournée internationale comme ni ko yeneen jànkat waaw ma non ñu génn gu ma nag euh, Afrique moom. waaw mu mel ni Côte d'Ivoire ak ay Gambie Mali woote yooyu moom dem naa ko jàngi waaye di Europe moom wax euh, dëgg yàlla sababu sababu sababu sababu lu gi nag maa ko def ndax man daaw rek laa mujjee déposé waaye ñu rejeté niñ ma koy niñ ma rejeté nag ñi ñuy rejeté bari bari ay jànkat ndax bari na ñuy demandé ñu daal xam ni da ngay da ngay da ngay lii lay laaj yëpp ngay waaye lay tax nag duñ la may wala ñoo xam maanaam day seen soirée la day neex ñu may leen yàlla fi ne suñu xaalis nii euh, biñ ko suñ bàkkee yóbbu euh, France première tukkeem ñu 92 ñëw ñëw na ba toogaatu ba 2000 mënut a faaw dem saabu buñ demandé visa duñ ko may. seen la seq noonu ñoom ñëpp ku ci nekk ba fii may wax yéen am na ñoo xam ne dañuy dañuy demandé bu ñu demee loolu nag moom kenn xamul lu mu doon ah, waaw. waaw sëñ Bathie ñu gis ne tamit am na loo xam ne laajoon naa waaye dinaa leen ko laajaat pour ñu gën a indi leeral ndax gis nañ ne yéen jàngkat yi bu ngeen dee jàng ci baas yi ñun moom loolu mën bari lool wala de waaye jéego poos yi comme ni murid yi daan jox la lu kawe sa njort ci àdduna ndax sëñ Bathie moom la. waaw du jeex loolu moom du jeex euh, waaw bu seen génn mooy benn dañuy tàkka yow di yow di reer di reer nga jàpp ni dañuy foofu am ñoo xam ni mbëgg mbëgg la ñuy def foofu seen génn daw jóg am ñoo xam ni seen force la ñuy am ñoo xam bu daanoo seen i yére la ñuy suñu jox am ñoo xam ne bu daanoo man mën nañoo toog jàkkaarloo yow nii ñu daan te doo xam daan yëpp dafa bëri ay façon yu jeex àll bi boo duggee da ngay façon jël bu ne ngay gis euh, ba ci man kasuré bi ma laaj la naa ngi daal ko def ko sëñ bi saa léegi mhm. yaa ngi ma jox àggul cinq heures la jox mhm. waaw tey jël la ko daane moo ko yàq limal nga muy bari waaye li la xaalis bi da ngeen ko nangoo tudd ndax ñu ngi yëkkati xaalis bi leen jox ngir xas day sañ tuwaay loolu du jeex day ko wax dama la du jeex mi nga am mhm. xaalis moom wax dëgg yàlla dañu koy jox waaw dañu koy ndax am na ñoo xam ni gis nga foo gis nit ku bëgg lu baax rek ku bëgg a safaan am na ku bëgg lu baax ñu ko te am na ay taalibe li wolof léegi ni la am na ñoo xam ne xësi moo leen daaneel ah. waaye am ñoo xam ne wolofal moo leen daaneel ah, ki nga xam nag wolofal moo koy moo koy mm. tey boo jàngee wolofal ba jàpp lu mu yor mën mm-hmm. am na ñoo xam ni lañ la jox sukkandikuwul ne ci baax di la ko jox mm-hmm. dañ laa bëgg te yàlla tax mm-hmm. di di woo loo xam ni ma sàmba du yëpp ma dem du yëpp ñu jox sex ko yow muy garanga yu mag yoo xam ne sa diggante ñoom xëy na ñoom ñu koy def sëñ Tuubaa rek xëy na ñu koy def ndax ñun ñii di jàng xam na ni lu waaye di def ci ñun sëñ yéen yi am ngeen li nga xam si ne moo di ay daay daayira daayira yoo xam ne soppe yi la mm-hmm. ndax soppe yooyu mu dafa yam ci seen koñ rek wala dafa wër ci waaw ah, soppe yi moom yaatu na ndax man samay daayira soppe mm-hmm. ñu ko formé foofu sura fële fële ko fële ko formé sax laa bu mujj bi mm-hmm. ndax bu njëkk sax ñu ngi ko formé daaru kon sax man daaru waxoon naa daaru woon Eh, Issa mi nga xam ne sama wóor la am bi may moom moo ko formé ko dañ ko njëkk a formé bi may toxoo suba ñu ñu ñu ñu ñu dajal dajaloo ñoom ak xale yi ne suba ñu def ko muy benn boobu nag foofu la tàmbalee waaye Dakar eh, Njaareem eh, Ndar yooyu yëpp am naa ay daay sot bu sama màggal rek mosaan ñëw ñun ñëpp dañuy dañuy dañuy ànd ma ñëw liggéey bi yëpp daanaka ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko yor ba maa ngi leen di ñaax. Mm-hmm. waaye mu yëngu tuwaayam. doon na ci sous-région yi boo xam ne ñoo xam ne. surtout foo dem nawet bi ñoom. waaw ci gis na tamit yéen jànkat yi tamit ku ne am nga mbir sax waaye saa su ne yéen tamit ñu ngi leen di xool di leen séntu fa sore sore yan ngay xaar ci sa kanam seen bàtt ak yan programme mu taxawal sa kanam. bari na ndax xam nga nit bu fekkee ni yàlla dafa dogal ngay responsabilité euh, lu bari aju ci sa ginnaaw. te li may faral di wax rek liggéey bi di liggéeyum njàng daa doon loo xam ni carrière am daa daa ndax baat aw rek la man ngay xëy mu muy xas eh, loolu nag bu la yàlla ubbilee nag buntu ngay ngay ngay nga ci am dara war ngaa bàyyi xel ni lii ko du du wéy war ngaa prévoir ëllëg ngir ñi topp sa ginnaaw sa njaboot ëllëg boo demoon tey ba defatoo lii eh, ñu mën a teg baaram yi lii kat suñu laaj bi moo ko fi laaj. waaw tey waxtu waxtu ñu ko bàyyi xel ba tax na sax fi laa doon bëgg ba xam jàng yi ngeen di def yéen a koy boole beneen métier wala. waaw ndax ah man boobu. Hmm. ndax bari ay bërëb yoo xam ne sa loxo yoo xam ni même bu ma coow demuloon jàng it loolaa nga génn daal. waaw ndax boo ko defut ci loolu donc day génn dem feneen. Hmm. te am na xamoo tey lii lii nga lii nga ñaanuñu yàlla mu yam rek dañu ñaan yàlla suñu biir bu ñu ne ci hmm. waaye. àdduna moo ko seet sama xamoo foofu xamoo kañ la kañ la kañ la suñu borom la kañ la xamoo war a di parawaat ëllëg di baax. waaw ñu daal di bëgg a xam tamit li nga xam si ne mooy sëñ Bathie eh, comme ça ni ma leen bëgg a waxee mooy jàngi daal gis nañ ne eh, lu ma doon am na lu ma doon laaj sax loo xam si ne mel na daal yaakaar naa ne eh, lu bari ñu ngi leen ci xaar. ci lu bari bari ndax dangay gis ne jànkat yoo xam tamit danga leen di wax lu mel ne jox leen cant. bu ngeen joxee jant jox leen xaalis nga jox leen avance avance boobee nga jox leen par da ngay gis ñu daal di xaw guddeel sa baas est yooyu leen faral di daal xam nga ñu bari lañuy ñuy gis ci kaw rek la ñuy sise duñu xool li mm-hmm. waaye mm, euh, ki waxtaan ak yow jox la avance am kooku mm-hmm. nit amul dul kàddu mm-hmm. xañ na bu ma toogee fi di wax man man sama bopp laa mën a waxal ndax yëngu bi dafa yàqu te xañ na ko ci nekk ak saw doxin mm-hmm. waaye man néew na lu may lu may lu may lu may boole sax ñaari programme waaye en général foo gisee foo gisee sama sama sama sama ma war a jàng xañ na tardé wala guddee génn baas mm-hmm. benn benn ñaari yi moom mooy ca programme ba lay doon ñoom seen programme mooy saturé mm-hmm. wala boobu heure ba mu waxante ñoom mu accès bu ndax xam ne am na ñoo xam temps bi day day dafa tolloo fi ne mois bi ñu nekk nii six mu leer mais bu ndoxee ba leer léegi na am na ñoo xam bu bu ñuy wax ak yow ci moment bii nii da nga leen di wax ne mën na maa tàmbali 3 heures fu 6 heures jotee nga bàyyi xam 3 heures ko jaar bu fekkee ni jamono yi ci kanam la nga ne ko 4 heures lay tàmbali loolu nag am na ñoo xam ñi ñëw di seetaan bu ñu xam li ci biir waaye jàng moom daa bëri yu ci biir yoo xam ne xëy ku ku ñu ko sequl rek la ca yam duñ ko xam waaye dafa yaatu daa mel daa yaatu ginnaaw waaw wax nga dëgg waaw yaatu na te gis nañ ne jàngkat yi tamit léegi bari nañ macha allah léegi ku jóg da ngay dugg ci xasida yi waaye ñëpp bokkuñu tamit ak ni ñu koy yore ak ni nga xam ne moom lañ koy téye ndax ba tax na am na tamit ñoo xam seen ne dañ ne ñenn ci jàngkat yi dañoo tey ji bu leen mbooloo mi xasee ba topp ñu commencé yëg mbooloo mi rek ko te dañoo war a xam ne nee nañ li nit ñi bëggee xasida yi Sëñ Bàmba la est-ce que jotu ñu xam loolu. waaw xam nga nag nit ñi moom nit ñi moom ñoo bokku yam nit ñi bokkuñu yoon te it ku ci nekk ak ak saw doxin man day sama jëm bopp man dox dunduma loolu te it eh, doxewuma ko tey ñi ma xam xam nañ ni ñëw ma foofu ndax li tax mooy liggéey bi ñu yor du du du du dañ cee doon dara sëñ Touba moo bind xasida yi tànnal tànn bokk bokk ma bokk ci ñim tànn ni da ngaa da nga ko da war a jàng nga wax ci di ko jàng mm-hmm. léegi man bu fekkee nit laa te am xel di xalaat mm-hmm. warumaa warumaa wane sama jëmm bu fekkee nit laa rek sëñ bi laa war a wane waaye warumaa wane sama jëmm mm-hmm. ndax doonu ma ci dara léegi nag dafa am dafa am loo xam ni eh, li ñuy wax ne eh, liggéey bu ne am na am na am roor am na liggéey ci liggéey yëpp am na ñoo xam ni xasida yi ak jaamu yàlla la du du du star du affaire star jaamu yàlla la ñu bari xañ na loolu la ñu fàtte mais du du du ak jaa jaay ak jooma ñaaw wala déedéet ak jaamu yàlla ak jaamu yàlla nag dama jàpp man jërul manifesté woo wala nga di ko si doro wala yoon ndax lépp loo ci man di loo loo ci man di am rek boo ko delluwaatee ci sëñ bi doo kii sama ah, waaw te lépp nag sëñ bi la dara dara doonuñ ci doonuñ ci daal ñun ah. lépp sëñ Tuubaa la ah, waaw sëñ Bathie waaw mu ne la tamit lu ñuy cërale ci waxtu dafa mel ne jeex na ñu daal di bàyyi nga daal di tàggatoo nga daal di <laughs> waaw kon waxtaan wee ah, nañ daal doon nañ def nañ bu baax. Eh, di la gërëm yooyu wax yàlla suñu soxna nga. Mhm. te eh, ñoo bokk maa yow dëkk ñoo bokkoon dëkk. Uh-huh. Eh, xam na lii xam na ñiy déglu tey tey tey tey te xamuñu sañ baat rek uh-huh. xam na a oh, xam nga ah, xam nga xam nga xam nga man lu bare bare bare ndax ñoo bokkoon dëkk nit uh-huh. ah, bu ñu ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay ak sa sa yitte ci léegi bi ndax wax dëgg yàlla jàpp nañ ko ay yoon sax wam ko mm-hmm. Mm-hmm. ngir xañ a xar-xar yi mm-hmm. ak it euh, ñàkk gee toog waaye yëpp sa yitte ak ak sa taxawaay tax rek nga soñ na ko ay yoon yoon te ñun dañ dañ leen war a jàppale ci li ngeen ne ndax euh, luy luy luy luy wane sëñ bi ak ak luy luy luy taaral yoon bi rek loolu loolu ñun ku képp ku ci yëngu war nañu càmm jàppale te xam nañ ni loolu rek mooy seen yéen loolu mooy seen pas-pas ah. kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ngeen ñaan yàlla liggéey bii ngeen door yàlla suñu borom suñ tubaab teg ci loxo. jàppal ko boppam. te te te ubbi leen ba ba ngeen àggale fu fu fu ngeen foog ndax sëñ tubaab mën na ko te tëlewu dara. waaw kon yàlla na ko def ci bàtt bi. waaw jërëjëf mbokk yi ñu doon topp ci 24actu.com ngeen gis jotaayu koor ñu ko baaxoo saa su ne ñu daal di àndoon ak tey nga xam ne moo di sëñ Bathie Diop euh, man man li muy def te bëgg ko lool macha allah tey ji nag xam ki nga xam ne moo di soxna Astou la tey ji nag i yitte mu leen koy jégalu ñuy ki nga xam ne moo di suñu cameraman muy Serigne Cheikhouna ki nga xam ne moo di tamit Moussa Ka duñ tamit ki nga xam ne moo di monteur bi

حي ويا قيوم يا مكرم يا أعطيتني ما الخلق أنسى كل ما مضى من الضر معوت الظلما كفاني من ماله كفنات بما لخير ساخ كل من جاء أكرمني بقل هو الله وهاد rabbi walam yakun lahu kufan ahad najaani allahu almukarrimu samad tanaajiyan bi kafaani alkamaad wajjaali lakramu anfa alkaram wa darari bi xayri rabdin insaram asalu kawnatihi alxasida خارقة الإعادة مفيدة يا يا خيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم وتقبل ذا الكلام من على خارج في الحروف بما يفوق الظن من محروف لناظم الحروف خلد الرباح يا من كفاه ذا الخرور من نباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ساسلا